asalaamualeykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu. mbokk yi ñu seetaan tey ñu ngi am mbégte contentement ci ajjuma bi nga xam ne mooy daj dëpp semaine bi bu ñu ko waxee nag xam ngeen ne lundi ba ajjuma Kouthia Show day am 18 heures la ba 19 heures heure bi nga xam ne kenn du ko mën a wut mbokk yi tey dina ñëw ci programme bi nga xam ne moo gën a yaatu programme bi lan la dinañ dem ci ki nga xam ne moom mooy Abdoulaye Mountaga Niass bi nga xam ne tàllal na loxo bi pour ñu rejoindre ko ci nga xam ne mooy waa bi bu leen fàtte ne kooku kilifa diine la ñu ngi soog a gis kilifa diine bu ne fàng taxaw ànd ak Macky Sall ci nga xam ne moom mooy mbiru mandat bi 5 la war a 7 ans mbokk yi dinañ ñëw ci nga xam ne nee na Macky Sall wax na moom ci olof déggul wax na moom ci français déggul ci anglais déggul ca langue euh, langue ba nga xam ne moom la Macky sal di làkk ci la koy fekk si mooy Idriss Seck nee na dina wax moom tey ci ay alpulaar yu fees dell yu dul tuuru mbokk yi dinañ dem seetuwaat Amath Dansokho nee na. Abdoulaye Wade ak ñi ànd ak moom ak front du non bii nga xam ne dañ ko taxawal nee na ñooñu ay bandits de grand chemin nañu nee na ñooñu ay malfaiteurs maanaam association yoo xam ne ëllëg sax mun nañoo daal réew te am na lu ñu préparé lu ñuul Amath Dansokho nag nee na day arrêté li nga xam ne moom mooy campagne ci campagne bu mujj bi nag day bàyyi di wër di campagne ndax mag da koo dab mbokk yi tey loolu dina bokk suñu programme émission Kouthia Show am na ñaari surprise yoo xam ne dañ ko ciy tafal tonton bi Sofé laa jàkkaarloo waaye ki nga xam ne nag mooy Abdoul Aziz Thiandoum moo jaar ci li nga xam ne mooy son bi ba baat bi neex ba ngeen koy dégg mu dugg ci biir satellite bi lumière bi bu tàkkee Lamine Camara la ngi koy gërëm di ko sant am mbégte contentement ci ki nga xam ne mooy Père Assane Dom sécurité ci biir ki nga xam ne mooy Kara sécurité ci biir Kouthia Show mbégte contentement jàpp lép li nga xam ne nag moom mooy leeral ak lëndëmal ci biir Télé euh, Télé Futurs Médias ñu ngi ciy kontaan Pape Lam troisième euh, euh, photographe du troisième millénaire maquilleuse mag lépp joxoon mbokk yi am nañu mbégte contentement ki ñuy seeti mooy mbay commercial mbay commercial ndax sponsor bi dafa yokk war a rafam ñu dugg mbaa ñu génn tey mu leer ci àjjuma ji la 4 mars mbaras kaay taxawee nii isa di doom mbaras d'accord d'accord <laughs> isa la dañ euh, <laughs> lamb sa lamb lu xew <laughs> may leen ko loxo Masam yaa xam li lu xew. tegal produit may leen ko loxo. waaw ma grand. Ablaye tey la anniversaire am dégg nga. waaw baax na ah, merci. joyeux anniversaire. Euh, pour Ablaye gis mbay goyaaf bi bi ñu ko wàññee ba tey. takk yeeg ngénte yi yow ni nga ko xamee moom a jaaxal foo dem moom la ñuy laaj léegi. <laughs> kanet bi kaay yow li ngay reetaan xam naa ko man loolu njaay. <laughs> tey rek ngay xam ne lépp dëgg la tegal. Ah, 300 francs lay jar. waaw man man man lu tax waaye ko takkee sama yoon nekku si. non lu tax euh, sama yoon nekku si man booy baax na. et eh, ça mbaras mbaras pas pour. Ah, dañuy sa tante la <laughs> bu fekkee ne sa tante ngay mbalak ci biir studio bi. parce que non xam naa fi nga jëm. Ah, ma. restaurant chef bi moo ànd ak banaana ak fraise. karasol ak lépp loo xam ne. te sax écurie Balla Gaye ay cité yëpp dara wóoruma ci mbay bàyyil di wax ay loo xam ne day jaxase ay écurie ñii ñëpp a koy naan boo ne Balla Gaye ñuy àndul ak Balla Gaye duñ ko naan ah stronchette banaana bi. fi ma lay xaar maa koy xaar kii nag mooy pour la famille. waaw litre ndox. nga am ñaari litre meew. mooy papa lu gën a gàtt papa yaay doom. <laughs> voilà très bien <laughs> mbay kii sama benn xarit étudiant Sidi Kane. waaw nee na ma étudiant yëpp dañuy réclamer l'écran biir université. ah naa la moo tax est que xam nga ni lii mooy sama kàddaa. day leeral sa bët dëgëral sa yàq. yow. xoolal gannaaw ñu jël bii ma daal kii moom laay mujjee dama am lu ma ci gis te nee na ah, pare. waaw waaw mujjee ko l'écran bi nga fàtte yow tamit xanaa koo fi. l'écran baa ngi nii bii mooy boo xëyee suba teel bii moom xam nga bii mooy fan bi ah, suba teel ndekki dessert reer ndekki dessert reer. détail baa ngi nii xam kii pour lan la. pour la. yow suba teel am 150. ndeysaan café juróom dërëm suukar juróom dërëm benn meew nga dékki. suukar juróom léegi laay ndekkee. jeex na. bu ñu ñëw oh. lu tax ma ñeme la. waaw da nga jege di wax di xeeñ mant. say <laughs> ba ñu ba pare set. waaw wuyu ma kii duñ ko boo ko defee nii emballage bi nii ñu xàmme ko. <laughs> ba ñu weex neexiree. weex tàll ni meew. neexiree ndeysaan dëgëral bañ setal bañ dindi lépp luy xam ne microbe la ci biir. léegi bàyyi naa def nii xam nga nii laa daan def xoolal def. yaa ngi xeeñ mant. wuy ma. la ilaha illallah. pos na saf. <laughs> Ah. la ah. tegal wax wax nga dëgg. allo la tudd. soo ne allo mu daanee génn bii nag ci douche ba. te sax xam nga maçon loxoom day wow. Eh, bàyyil maçon yi ngeen tooñ. sa papa maçon la. waaw d'accord waaw. lii mooy bii dem ca waañ ba ndax boo raxasee géej ba pare bii mooy dem ca bureau ba. bu ndaw bi nag mooy ca poos. lay doon waa léegi mbay. wuy ma léegi kaay kaay ma daal bii raxas oto raxas sa kër raxas sa xale yoo xam ne dañoo dem football ba seen yëre yi takk ban. moo ci gaaw waxuma la sax ndekete président yi seen costume yi li ñuy xeeñee. Hmm? ndekete ñun Sénégal dañ ci yéex a jot de. waa bala maa laa wax dara Pape Lam foto ñu ba pare. ana Pape la am nañu fa dama pare. garaawul. <laughs> yow ndeke dañ baras dañ laa mbas. waaw lan la woon. ah mais nag ah bëgg naa la trop. waaw parce que j'aime beaucoup. parce que nootu ko ko wax rek ñu takk ko koo jéem a labat <laughs> ñu takk ko félicitation. <laughs> Ah. Ah, waaye kii di ko may loxo. nañ la may loxo kuñ takk sëgam yaa xamul li xew man xam naa li xew kuñ takk Fatou Gueye Fatou Gueye moo lañ ko takk waaw dañ koo takk Fatou Gueye moo lañ ko takk eh, xaw boobu ay nax saale amoo dara lañ ko takk amoo il y a rien compris il y a rien de dire amoo loo wax dañ kaa dagg dañ kaa takk dañ koo takk waaye dañ koo takk bàyyi ma waaye looy <laughs> maman Niang na eh, nañ dem anniversaire maman Niang bi rek waaye li ngay def ñu dem teel anniversaire am <laughs>

sa njarama lamu sa njarama lamul sa njarama lamu sa njarama lamul sa njarama lamu sa njarama lamul sa njarama lamu sa njarama lamul Touba Madar l'écran ak alo hen bi xam ne sa loxo da koy nooyal ak fresh up bi xam ne mooy setal sa gémmiñ weexal ko ba weex tàll goyaaf bes ak yeneen parfum yëpp am na strong shake bii nga xam ne meew bu ànd ak meññeef la canette bii nga xam ne mooy bés nag njëg bi wàññeeku na mbokk yi ñuy profité du ziar suñu papa alaaji Cerno Samba Samb Morabi di ko ñaanal fan bu gudd góor gu yaram guddal fanam Cerno Bokar Bari le 7 le 8 le 9 ca Bogal mooy gàmmu gi bu ko kenn wutu alaaji Cerno Hamdou Aw xale bu Celaaw alaaji Ousmane Ndiaye Waaliw Kaamin dëkk ca HLM Angle Mousse da yeewoo ca Ngaay Mexe la grande euh, euh, Mame Bousso la grande euh, commerçante ñu koy nuyu ak Alaaji Bassirou Baara Mbacké ñu ngi koy ziar di ko ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram foofu ci HLM Guédiawaye Go Fall ak Abdou ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd ndax sëñ bi wax dëgg yàlla dundam am na njëriñ sëriñ Abo ibn sëñ Fallou Mbacké ñu ngi koy ziar sëñ Abo Mbacké di ko xamal bu fekkee ne yaa ngi may dégg man daal bàyyi naa mati àdduna ak alaxira ndax mati ci boppam am na loo xam ne nag léegi nag dama koy gis ñu koy aaye te l'islam nangu ko commencé na ko ne moom lay jaay léegi te yow la gën a jege kon nag sëñ bi man boo bàyyiwul sa taalibe bi man bàyyi naa mati ndax ibbi na ci buntu këram mbokk yi ñuy ziar tamit bu baax ki nga xam ne nag mooy suñu xarit nekk foofu ca Waadaan di doom ja yàlla yàlla defal euh, fan bu gudd njaboot gi yëpp ak ki nga xam ne sama mbokk jolof jolof la Abdou Karim Mangane ak ñaari soxnaam ña nga ca jolof Sadio ak Fatima nuyu nañu cardinal Théodore Adrien Sarr bi fi nekkoon di ko ñaanal fan bu gudd ak carême bu neex ak ki ko fii ci li nga xam ne moom mooy bopp cardinal bi nuyu nañ bu baax ki nga xam ne maître Fatima Fall responsable politique euh, damay tàggu tonton mag di ko xamal ne actuellement nii dañuy dem Saalum nag seere na lu tax Saalum seere parce que ñett ña nga fa waa euh, RP ña nga fa euh, APR ña nga fa Lat Menge ak ki nga xam ne nag euh, moom mooy euh, premier serviteur bu RP ànd nañu waaye Abdoulaye Mountakha Niass moom tamit jóg na taxaw pour wane ne moom tamit kilifa diine la waaye day ànd ak Macky Sall ci li nga xam ne moo am ca Saalum nañu ko seeti bu leen fàtte na kii di ñëw nii conseiller ministre conseil la conseiller tamit la foofu ca président euh, conseil la du moins bu spécial bu président Macky Sall moom ca boppam Saalum Saalum la moom ca boppam Niassène la Abdoulaye. Muntaxa Ñas ca biir Saalum jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi leen nuyu di leen sant di wax ne man damay politique waaye kilifa diine laa waaw man de dugg naa Saloum daal koy toj ak wii ndax waaw wii ak wii mooy waaw ni ko tubaab bi di waxee saa jàng nag soriwul lool ci mbiru tubaab. waaye jàng naa arab xam arab jege lool président Macky sàll mu def ma ci wetam ma koy xelal ci réew mi ni muy doxee ak doxalin réew mi réew mi ci boppam nag am na noo xam ne tey kilifa diine yi waruñu toog rek te bañ a seetaan man li ma gis ne jàq laay mën a wax lu ma gisul dama ciy muur samay bët ndax kenn wanu ma ko waaye maa ngi leen di giiñal ne saalum lu ko dalee ca buntu Fatick jàpp siin ak saalum dem Kaffrine wàcc Tambacounda jaar Casamance ak Ziguinchor ak Bignona fépp fu ma jaar pour ba wundi na pënd ba wuri na lépp saay na waaye nag dama dégg ci politiciens yi euh, euh, euh, barki démb ñu naan amul benn kilifa diine boo xam ne taxaw nga ànd ak Macky Sall xanaa ñoom dañoo xoolul wala dañoo xamul ne man ci njabootu ñasee ni laa bokk li ma gis sama bët mooma ko ko ko ko may te ku ko sa bis may nga daal di koy mën a def réew mi nag ñun kilifa diine yi buñ ne tekk toog xool ëllëg musuba bu amee ñoo ko yëg ndax déet bee nga xam ne moom la ñuy wotalu bés buñ ko defee ba déet bi gañee réew mi du dem du dikk day tagatémbe te réew mi bu demul dikkul tagatémbe réew mi du neex ndax ñun kilifa diine yi kat ñooy woote gàmmu ñooy woote màggal ñooy woote lépp loo xam ne dañu ciy woo ci diine te ñi nga xam ne ñoo ñuy seet si di taalibe yi war a def li nga xam ne moom mooy ay berndel war a joxe addiya war a tegu ci yoon bu réew mi demul dikkul tagatémbe gàmmu yi tamit du dem du dikk day tagatémbe ndax balaa ngay jox sa sëriñ addiya war a ngay jox sa wasila li nga xam ne moom mooy sa àq ak li nga xam ne moom nga am bu dee dugub la gerte war a suukar ak lu munti doon bu réew mi demul dikkul loolu day taxaw ne teg tagatémbe Macky sàll nag la mu def laa ne jàq fii ci Saalum gis ngeen lim fi def gis ngeen tëli bi gis ngeen zamalakal waa allah inna un uulikiina habibi ndax ñun waa Kër Baye dañoo am ay taalibe anglais ñoo tax ñuy dem Angleterre ak Nigeria moo tax ma ne ma me I want yes me I want yes because yes is yes yes yes to now yes to do yes to every yes to begin to to to to to yes. na ñëpp wax yes la ma wax ci olof nag wax ko ci arabe wax ko ci anglais dama koy wax ci làkk bi nga xam ne mooy français ndax yéen journalistes yi lu ñu fi wax ngeen dem bind ko kon c'est moi la marabu la marabout dit oui le talibé oui oui le marabout lui partir pour la la la wàññeeku la non non la wàññeeku la non non la laissez pas. laisser là-bas le, le, le, le, non, prendre le oui. Oui, oui, pour, pour le euh, référendum oui de euh, Maxal. Le Maxal, c'est président de euh, oui. Le Macky président, le marabout euh, euh, euh parole oui pour le oui dans la Wagneku. Le Wagneku, c'est le nom. Le nom est arabe. Le nom est maladie. Le nom est maladie qui est mauvaise. Le marabout dit oui. oui parce que le, le président Jël dernière euh, élection il avait dit lui il faut travailler toujours travailler encore travailler moi le marabout dit il faut oui toujours oui encore oui pour oui wote oui avec oui et oui beaucoup oui toujours oui Macky Naw la femme Macky oui le enfant Macky oui le gendarme oui le mécanicien oui le menuisier oui l'atelier la tailleur la boutique le mbedd la ASC les équipes les gardiens les classes les robinet mbedd les boulangers les baykat les sàmmkat les nappkat les bateaux les gaal les yére les baas les seize les tandarma les mbaxane les lamine la nopp la bakkan la dënn les yeel la doole la faxasu la wiccaxu la ñax mond maki marem Mohamed Cheikh Moustapha Diop man yàlla yonent bi taalibe baykat malaaka addina alaxira armeer ngénte mariage de jàkkaarloog yaa orgv ñuy am mbégte tamit di wax ne Serigne Mansour Sarr ziar nañ ko chef religieux dëkk ca Tivaouane di yowoo ca guddi ak soxna Adja Kine si bu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si almaxtum xalif général Tidiane yi fan bu gudd nañ koy ñaanal ak bu Touba fi nga xam ne nag moom mooy euh, ca euh, Kaolack Ndiassane yi dégg fàttewuñu kenn ñi nga xam ne tamit ñoo nekk euh, suñu mbokk waa Ndiassane yi ak Ñaseen yi di nuyu tamit képp koo xam ne nag yaa ngi ci réew mi tamit di xalif généraux ñu ngi leen di ñaanal fan bu gudd ak gu yaram ca Cambérène fàttewuñu leen tamit képp koo xam ne wax dëgg yàlla da jiite njaboot yoo xam ne nag ñëpp ñu ngi ci diinal islam te jiite ko rek yal na yàlla may fan bu gudd ak wér gu yaram ziar nañ dëkk ca Paate Ngalo à Île à Morphil di am mbégte bu yaatu tamit ci ki nga xam ne mooy suñu papa alaaji Tamsir Sakho bi nga xam ne nag ziara annuel bu Ngapparu bu maam Ilimane Sakho le 12 mars la ca Ngapparu anniversaire Kouthia lay tombel ñu ko daal di koy tal tamit nga xam ne moo nekk Télé Futurs di réalisateur tey la anniversaire am toute l'équipe de Kouthia Show et l'équipe de euh, TFM ñu ngi koy ñaanal fan bu gudd wér gu yaram di ko ñaanal tamit mu fa am yaram moom Diop depuis Yarax ñu ngi koy ñaanal moom Apulaay mu am yaram Ndey Fatou Mbeng depuis Mauritanie ak Maman Mbeng Assane euh, Tama chéri euh, Tulli Cuun taalibe sëñ Bas Baara ak Mëgay Fall ñoom euh, Maam Fatim Fall ay Nina Fall Pape faal am a Mbay ñoom Jaara bëgg Kouthia de la part de Go Fall ñii ñëpp ñu ngi koy ñaanal moom tamit Apulaay yàlla dimbali ko ba mu jaaree foofu am yaram ci anniversaire am bii nga xam ne suqaliku la war a doon ci moom kon mbokki yi dañuy dem ki nga xam ne mooy Idrissa Seck ma nga waxee wax ju am solo nee na ki nga xam ne moom mooy euh, président Macky Sall ñoom ñaar ñoo nekkoon ci parti PDS mais am na lu mu xamal Macky Sall parce que nee na Macky Sall bu ñu mosaan toog ñoom ñaar di waxtaan mu ñëw këram da ko doon wax ne ko man amul dara film bu may intéressé du film kaboy du du film euh, CIA du film ay politique mais moom film bi nga xam ne moo ko njëkk daanal ba mu dugg film mooy Amar Akbar Anthony moom ndekete président bi ku yàgg seetaan cinéma indo la ndax xam nga ne fa mu dëkk ci Fatick Fatick soriwul ak fi nga xam ne mooy kooñu cinéma te moom wax dëgg yàlla bu doon dem di jàngi da doon romb cinéma bi dégg ñuy wax affaire indo nee na nag dina wax ak moom tey ci ñaar fàttali ko tamit ñaar ñaari bi koy fàttali rek moom lañuy seeti Idrissa Seck président réew mi mu tax a wax ak askan bi ci jëf yi nga xam ne moom la Macky Sall di joxe ci réew mi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm yéen ñëpp waaye di ñëw di waxtaan ak yéen ci loo xam ne dafa mel ne waxtaanu ñaar ñu mënul wax man de damaa jaaxle man Idrissa Seck ñaar ñoo ma jaaxal parce que le président Macky sàll dama ko woo ci français wax ko ne ko na bàyyi référendum bi war a na toog te bañ a dugg ci loolu dégguma ma wax ak moom ci olof dégguma ma lakkanteeg moom ci anglais déggu ma nee naa ko sa président President of Senegal you are is a very intellectual bu not is a referendum what you goose me mais dégguma ma ko ci français il faut laisser le le le faiseur de malin c'est pas gentil le Sénégal n'est pas dans une situation pour organiser des référendums tu dois démissionner ou bien tu dois revenir à ta parole dégguma ma wax moom na ko bàyyil li ngay def ndax yaa fi waxoon waxeet mu weddi ba pare di ñu wax ne moom pare na waaw moom dafa mel ne moom li may wax moom da ko déggul dama ne moom xam na ne sama soxna alpulaar la ndax nday penda ci boppam ñëpp xam nañ ne ndey penda sëtu lam la bur gédda alwaar sëtu Omar Foutiou Tall lam bu mag bi te ndey penda sax nee na ma Idrissa ma ne ko naam mu ne ma bu ma kontaanee yaa tax xanaa xamu leen ne yéen may wax sa Seck waaye moom duma wax wax sa Seck danaan ma Idi Lam Toora Idrissa Seck taal ma ne ko kon taal képp kuy Lam Toora nekk ci dëkk bi war a fuuta man maa leen gën a jege ndax kenn ci seeni ay doom sama soxna la di Penda Taal di sëtu Omar Fuuti wu Taal ndax boo demee ba Fuuta fi nga xam ne mooy alwaar foofu la ay maamam soqee ko kon ki nga xam ne mooy président Macky Sall su ma ko waxee ay xaal pulaar dana ko dégg Macky ala kàngodo yaa ngi may dégg ala kàngodo so wecci ma weccee ni so ma juddee wa haccu ma haccaa ni o ala kàngodo Macky Macky si a daani wojjeene ka daani way mi mo tima daani daanataade ko wuuce kay dama ne ko carrément li ma wax dafa leer boo dëgëree bopp ba dëgër bopp lu nekk sa kanam boo ko gisee bul daw waaye moom ci boppam comme que daf may dégg sax di ma tontoo ci beneen feem dama koy xamal ne ko comme que film indo moo ko doon daaneel te bu muy dem cinéma da doon jaar yoon boobu egg seen koñ moo ma ko wax de xam nga boo nekkee ci nguur gu neex rek ma nekkoon premier ministre mu nekkoon ci ministre yi ma doon yebal ñu may doxali samay soxla bu mu saan ñëw ne ma waaw idi ma ne ko naam mu ne ma jàppal indo yi boobu ndem si nu ma tuddati rajo Dunia télévision benn baas bi yàlla na ko yàlla xare àjjana moo amoon seen bu tudd indo bu ñu musaan ñëw boobu marem mun na ma jël en témoin ndax jabaram la te xam naa ne ku jubla day ñëw rek ne ma ay ca jàppal ma alamaar ak bar Anthony ma ne ko yooyu yoruma ko mais dafa taxoon ba ma uti kaset bi di ko ko tegal te ma dama koy seedal dëgg rek te yàlla tax d'accord mun na defante ci politique waaye xam naa ne xol ba ci boppam oyof na oyof goo xam ne <laughs> tuur rongoñ yomb na ko bu musaan toog rek ba sa sa sappour kapoor romb aminta basan jaar ak gabar sin bandi bu mag bi nga xam ne ku mu mës a téye tiire la bu abanta basan taxawee ba gabar sin génn pisole bi da ngay gis mu xalangu ne ma déedéet mënuma ko xool waaye daan na ci dégg way buñ naan neexi neexi te neexi neexi mooy déedéet Macky bu fekkee ne wax naa la alpulaar nga dëgër te bañ a dégg damay jaar ci li nga gën a bëgg a jaar la fa xanaa di ko dégg moo tax ma ne Macky nexi nexi bi nexi référendum nexi baaxee nexi nexi gin nexi nexi nexi nexi référendum nexi Macky nexi bin nexi nexi nexi nexi Macky nexi gin nexi nexi magi nahi gin nahi ah nahi nahi na magi nahi gin nahi nahi gin nahi nahi nahi nahi hey magi gin nahi nahi nahi na way bul nagu del bañ bu ko wote naxi naxi mooy non dama bëgg mu xam ko ndax xam na indo yi ma koy wax bul nangu del bañ wotel non mooy nexi nexi nexi gin nexi nexi nexi nexi nexi nexi nexi nexi gin nexi nexi nexi nexi nexi bi jox bànneex saa yoo ko naanee yëg lu neex a neex te am ci façon yu bari strong shake moom la ñëpp bëgg dafa neex lool. strong shake ana banana strong shake fresh papaya strong shake strong shake ana carrot strong shake strong shake meew mi neex de kenn lii waaw waaw jus best rek jar na lu ko ëpp ndax moo fi gën xanaa xamoo ne best du ay saveur artificiel ay fruits naturels dëgg lañ ko composé li tax best gënal ma mooy moom rek mooy toog ñaari at te yàqu ndax defar bee wóor li si dàq sax mooy léegi canette bi 300 francs dong lay jar brique bi nag 1000 francs kese xanaa gën a yomb best orange best mangue daal dëgg dëgg mooy jus bi neex wóor te yokk ba neex. mais yow tu fais quoi même tu crois que ton linge va se laver tout seul frotte un peu kay. ah pourquoi frotter quand les autres le font pour toi. kan quel autre y a que nous ici de. non quand je dis les autres je parle des enzymes de ma lessive Madar. xoolal. nouvelle formule, avec ses enzymes, donne à votre linge plus d'éclat et de fraîcheur. Ces nouveaux principes actifs, plus puissants, attaquent les au cœur de votre linge. Ah, ma si. Madar, nouvelle formule, nouvelle vie. am na ay benn meew jaskam benn la far te neex dakate se crème l'écran la ci bu leer l'écran dina gën a firndeel suñ bëggee bis ni ki xam leen fem bi jaxe cafka seeni toog mu di meew concentré l'écran bu amul suukar maladie universelle di doxalin ci wàllum paj bi njiitu réew mi son excellence monsieur Macky Sall taxawal ngir askan wi yëpp jot ci paj mi ak nu seen poos mën a toll couverture maladie universelle mu ngi tekki xale yi amagul juróom juróomi at dinañ faju ci post ak centre de santé yi ci réew mi yépp ca duñu fay dara couverture maladie universelle di doxalin bu suqali plan Sésame ngir jàppale mag ñi am juróom benn fukki at jëm kaw ci seenam paju ak couverture maladie universelle it jigéen ñi wasin ñu war leen opéré duñu fay dara beneen xéewal bu couverture maladie universelle mooy képp kuy def dialyse doo fay dara ci biir Sénégal yépp ak couverture maladie universelle ñi bokk ci bourse de sécurité familiale yi daañu leen dugal ci mutuelle de santé yi gàddul leen seen cotisation bokk na it ci doxalinu couverture maladie universelle taxawal ay mutuelle de santé ci communes yi nekk ci biir Sénégal yépp juróom fukki junni way laago yi amee carte égalité des chances ak couverture maladie universelle daañu leen ca faj ca duñu fay dara couverture maladie universelle CMU bokk na ci programme yi ëpp solo ci PSE plan Sénégal émergent. Le dentifrice Fresh Up rend les dents blanches, procure une haleine fraîche et le fluor renforce les gencives. Fresh illuminez votre sourire. عما يشركون والله خالق الباري لا اله الا الله يلا بجو مسور له اسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو عزيز الحكيم yal yaa raxmaan contentement bu mag nuy waa Madaar l'écran ak Alohen bi ñu seen loxo euh, fraîche bi nag wóor na ma ne lu leer la parce que euh, euh, ki nga xam ne mooy mbay wax na ma ne moom ci boppam dafa yoroon xar xar bi ci boppam gémmin yi ba ñuy daadee jaune mais moom ci boppam bu bu bu bu bu bu broso ba jël brosse bi. bu ko sax raxasee gémmiñ xar mi sax xar da ngay gis xar bi ci boppam bu suuree ba ñu weex loolu waxu mbay la waaye man ay waxu nit laay wax dama ne kon bëñ yi nga xam ne dafay am ay treize cigarette ak café bii moo ci gaaw best wàññi nañ njëkk bi kare bi wàññi nañ njëkk bi tonton mag ñu ngi am mbégte ak contentement di profiter de ziar sama papa alaaji Malick Badiane chef religieux dëkk fëy nga xam ne dëkk bi mooy Badianeen nekk foofu ca Malem Odar ak tudd la famille de Badianeen ñoom nag ñooy def bii le 12 mars mu tombé sama dañ ko déjee papa waaliw yàlla boobu nga xam ne moo nekkoon Serigne Bassirou Badiane wax dëgg yàlla ñuy wax taalibe bi ku ko dégg na nga fa dem ndax am na solo trop gàmmu googu nga xam ne waa Mbadiane neen te yàlla may leen loolu ñu dëkk ca Malem Odar yàlla may ñu fekk kook jàmm di ko ziyaara moom ki nga xam ne mooy Alaaji Malick Badiane am nañu mbégte contentement bu mag di ziyaar tamit képp koo xam ne yaa ngi am bàyyi xel ci ñun rawatina nag ki nga xam ne nag mooy suñu xarit euh, di euh, Serigne Cheikh Gueye mu Serigne Modou Diarra Gueye xawlu di bàyyi faalu Serigne Bass Baara moom ci boppam tamit la 4 avril bi xam ngeen ne 4 avril ren dafa nar a neex ndax Macky Sall nee na day def défilé bu mag moo taxit si ñoom ñu ngay préparé défilé ki nga xam ne moom mooy sëñ Bass Baara ci ay berndeel foofu ci école 16 ca Géejawaay soxna la ñu naan ko soxna nga xam ne moom mooy euh, Baye Fallou sëñ Baara bii nga xam ne ñoom tamit màggalu Kajoor bii le huit la insha allah taalibe yëpp ngi koy préparé yan ci yàlla may ñu egg ca jàmm mbokk yi ñu ngi euh, nekk ci wet gi ak ki nga xam ne nag moom euh, suñu xarit di Abdou Aziz Thiandoum ca Soba dañuy dem seeti Amath Dansokho li mu wax tey ci la tribune dafa rëy ñu seeti Amath Dansokho laa ni xota xota boole xota ma ñamaa ñoo ni xota waay ni xota waaw waaw waay xota xibaar Macky Sall yaa ngi nii toog méridien ñépp toog Moustapha Niass ak ñi ànd ak yow yépp ñu ngi nii tey nag ñaari wax dina am ngeen baal ma musuma am lu ma euh, wax déclaration bu rëy ni dama feebar dama koy wax du ma ko nëbb ndax nit bu yëgee yaram sutante du ko nëbb Ablaye Wade ngi préparé lu rëy Ablaye bandi la ak ñi mu àndal ñàpp ay malfaiteur ay woyu yoo xam ne mun nañu rey nit Ablaye fan ngeen di xamee Ablaye lu ne sañ na ko gisu leen ko tànkam ci dëkk du fi parce que xam ne ne dëkk bi ñëpp ñu ngi euh, euh, euh, ci dëkk bi am fi gàcce parce que li mu bëgg a wax pour ñu wote ko du ñu ko am dañuy am gàcce waaye li ñu bëgg bés bu noo bi gañee senegal yàqu ñu ngi préparé coup d'état maa ko dañuy préparé pour rey ñu ñun ñun ñu nekk fii ñu ngi nii toog loolu dafa ñaaw ñu ngi préparé lu lëndëm lu ñuul kukku boo demee ci Selbé Ndom seetkat dina la ko wax Ablaye man mus na maa koj moom mos na ma koj nangu sama mburu boobu sax maa ngi am doole bambara ak doole sarxule ndax man léegi rek la yaram bi sutante waaye ku ma bëri histoire Sénégal xeex naa ba Tamba xeex yi ba Kédougou ak fati waaye bi ma ñëwee dakaar la ma Ablaay napp boobu étudiant la mu kot ma ci mbedd bi na ma indi samburu ma bañ mu ne ma samburu ma bañ ñu boobu Ablaay mu ngi soog a def euh, ndelam bi mu xuuxal ma Ablaay dafa ñaaw mu ne ma xuux malaakika la mu waxat xu ma bàyyi fa mburu bi boobu mu ngi am doole tamit Ablaye du du xale de doole rek la ma wax leen beneen Mbaye Gueye mus nay bëre Robert ma nekk université ak Ablaye mu ne ma duñu dooma yóbbu ci làmb ci ma ne Ablaye loo def làmb mu ne am naa doole soxor naa muus na du xale de Ablaye Wade ngi préparé coup d'état ak ñoom wayu yi Mamadou Diop Decroix ay wayu nañ ay bandit de grand sommet ay Malick Gakou ñu ngi préparé lu rëy du ñu nangu ku labaje suñu dëkk bi non bi mooy bu ñu ko wotee ba mu am Sénégal porox nañ ñun ñëpp du dëkk bi du dem du dellu euh, ginnaaw Macky Sall mii xale la Macky du mag suñu doom la billaay li Macky def pour man duma ko wax kenn ndax man tey laay mujj wax ci politique campagne bi bu jeexee damay bay ndax tamit duma wax di wax rek sama xol bi gën man Ablaye laa wax mu bàyyi xale yi muy yebal na ñëw wone boppam mu nekk ci ginnaaw Mamadou Diop Decroix ak Papa Diop Aïssata Tall Sall a Khalifa Sall Bamba Fall ñoom ñëpp Ablaye ñoo leen di woo Macky na nga moytu tu as affaire avec un vieux politicien très malin Moustapha ngi nii toog sa wet ma taxaw ñun ay mag nañu duñu ko duñu la nëbb Ablaye dafa bëri ay ay ay tabax waa Boko Haram sax dañu fii ñoom ñoom Ablaye moo leen maa koo gis ki jiite Boko Haram mu ngi côté PDS bi di wax ak ñoom bi parce que boo leen wotee non da ngeen di dem ci marché yi dëgg bum bisaab yi ak kayu karoot yi ñàkk caaya yi yëpp tas ñu ngi préparé ay bomb ci grand place góor bu màgget bu bàyyi sa baay mu dem ci grand place bi bu Ablaay la damay bàyyi bu campagne bi jeexee damay arrêté Ablaay yàlla li ma ko yéene Macky Sall yàlla defal ko jàmm dama yàgg ci politique ak ah, xale bi daf ma defal lu am solo bu ñu taxawee tey ay mag ànd ak Macky Macky Sall bëggul lu dul Sénégal mu jëm kanam adduna bi ñëpp di wax Macky Sall ñu koy taxal loo xam ne du rafetu affaire góor jigéen yàpp ñuy wax ne Macky moo ko bëgg a may wax yàlla bu fekkee ne nit dafa yàgg ak yow ci àddina mag yàgg na ak yàlla yàlla maa ngi lay ñaan ci sama bejaaw bi nda rus ma Ablaye dafa bëgg tas Sénégal mu ngi ut ay bomb ay bul faale Macky bul faale bul eh, toppatoo saa doomu yaayu ndey Marème Sall eskay li moo daw yaram waayu Lamin Jóob xaritu Cheikh Alay woy eskay li moo daw yaram waayu Lamin Jóob xaritu Cheikh Alay woy macha allah baay Cheikh Mamour Insa allah allah mu doon seegatu macha allah baay Cheikh Mamour Insa allah allah mu doon seegatu macha allah baay Cheikh Mamour Insa allah allah mu doon seegatu macha allah baay Cheikh Mamour Insa allah allah mu doon seegatu am nañu mbégte contentement bu mag di ko ziar moom Serigne Gora Seye moom ci boppam ñu koy ñaanal fan bu gudd ak wér gu yaram bu leen fàtte le 12 mars incha allah moom mooy bés bi nga xam ne nag ci nañ def 99 noonu de jéey fekk ko am na solo trop ndax turu yàlla yi neex yi bu ñu koy euh, tudd koo ko fekkee nag di ko fekkee waat ndax yàlla suñu borom moom daal képp koo xam ne nag yaa ngi koy euh, sargal ci turam yooyu wax dëgg yàlla di nga am tamit jukkal bu ci euh, kon nag Serigne Gora Seye ñu ngi ko ci ziar di ko ci ndokkale samedi doon ca terrain Thiaroye Azur ñu ngi am mbégte contentement ci taalibeem yëpp di gërëm bu baax xam ne nag tamit mooy Baye Cheikh Mamour Insa Diop chef religieux ak xam ne mooy Cheikh Ababacar Diop Cheikh euh, Cheikha Aïda Diop nday Fatou Diop nday Daba jopp ah, Dabo Diop ak ajaratu soxna Xadi Sall ca Angle Mousse ak ki nga xam ne mooy Adja Sagar Sall nekk ca Angle Mousse ziar nañ leen bu wër di am mbégte kontaan ti tamit eh, bu mag ci soxna Astu Mbàkke Akim Ibnu Serigne Abdou Akim Mbacke ibnu Serigne Basirou ibnu euh, Serigne Touba ziara nañ ko di ziara tamit Serigne Baye Mbaaxe euh, Mbacke Daaru Salaam ambassadeur Mame Cheikh Anta Borom Daaru Salaam actuellement mu ngi ca Milan ñu ngi am mbégte contentement di ziara tamit Aliou Bari depuis Milan di ko a fan bu gudd ak wér gu yaram waaye tamit di wax Nicolas Bassène depuis rue 9 angle 6 Maman Wé ak ñoom Zadine ñoom Anthiou depuis Médina di leen souhaiter bon carême de la Georges Diouf maire Marème Kaañi Kaañi ñu koy nuyu depuis Kër Massar ak Cheikh Mbaye ligne 61 Kader Faye Pape Malick plombier ñoom Ndiaga Masson ak Ousmane photographe Ibrahima Neex Sow nuyu na leen joyeux anniversaire à Ya Amin Ndiaye de la part de Mbaye euh, et Koutia bu Koutia Show di ko wax joyeux anniversaire à Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Diop Sarr Pikine euh, Pikine samedi 5 mars joyeux anniversaire à bébé Maman Niang fille de Dieynaba Ba Mati Thiam de la part de Mbaye bu loolu ay dóor la di am mbégte contentement bu mag ci euh, ki nga xam ne mooy suñu papa alaaji Thierno Dialy Baro le mars moom mooy gàmmu boobu ñu xam ne da koy jagle Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di euh, am tafsir Sakho ci gàmmu alaaji tafsir Sakho le ziar aténal bi nag euh, di ngapparu suñu maam maam Ilimane Sakho dañ koy defal le mars ca ngapparu mbokk yi ki nekkoon ci réalisation bi tonton mag la feggook Apulaay di nuyu tamit Abdoul Aziz Thiandoum ca son ba waaye tamit yaaw gervé ñu yi di am mbégte Euh, Kara nekkoon ci sécurité bi père Assam Dom sécurité euh, intérieur kon mbokk yi dañuy dem ànd ak Madaar l'écran alors en fraîchep bés ak Istron euh, Cheikh tàggatoog Macky Sall bi nga xam ne démb jox na gars yi doole moom nee na gisul li nga xam ne lu gën a neex football la gis mooy comme que gars yi coow nañu bëgg nañu dem guerre entre l'armée du non et l'armée du oui Macky Sall déclare la guerre aux opposants Aïcha maa ngi leen di gërëm di sant yàlla defal jàmm yéen ñëpp am naa contentement damaa woote ngeen ñëw yéen ñëpp a ngi toog ci saal bi tey jooy naa parce que ama dansoxo tuur na rongañam ndax man na nee na waaw na waaw waaw bi dëgër incha allah papa sa xel na dal incha allah on va le remporter su ma gëstoo gis suma papa Moustapha Niass gëstu gis suma papa dansoxo gis ñoo xam ne ñoo bokk génération suñ ma magul tamit ñoo maase waruñu mag ma tuuti damay dalal sama xel gis naa ko démb ci journal direct info ñu ne match de football la waaye match de football am na leneen lu ko gën a neex parce que football jongante la waaye jongante bi nag bu fekkee ne Amath Dansokho li mu wax am na ay firndeel que dañu jël ndëgg sërëx pour yem a yàq Sénégal moo ñu voté non te loolu yaakaar naa ne sénégalais bu nekk war nga am lu ne. te kenn ba la ko xaj parce que ñun politiciens kenn ku nekk am nga sa àq ak yelef boo xam ne nga a dund te kenn du la sonal nag bu fekkee ne ay comp nit ñoo taxaw pour yàq loolu dama ne ñu wote waaw pour Sénégal nekk ci jàmm moo gën coow yi nañu xappi parce que waruñu mer soo meree ngay wax non soo kontaanee ngay wax ngay wax waaw léegi kon li am solo mooy ñoom dañu taxaw pour tànk suuxaloo Sénégal ñun tam dañuy taxaw pour xeex ak ñoom ci terrain bi wax ji nekkul ci ay bureau nekkul ci ay réunion ay salle ñun dañuy génn parce que ne tey ñi fi toog ñëpp jox naa leen dëggal yéen ñëpp bu ñu paree réunion bi kenn ku ne nga nga taal sa oto dugg parce que suñu waaw mooy suñu ndëgërlaay di remercier ñu fi toog maître El Hadj Diouf Youssou Ndour ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp ñu ñu taxaw ñoom ñëpp laa bëgg tey ñu xappi nañu ànd kontaan wala ne que ñoom ñoo tiit waaye ñun tiituñu mais Barça buy football ak Marseille wala Barça di football ak Real Madrid. war a Balla Gaye di bëreeg Modou waaye mbër bu nekk xam nga sa cumukaay ak sa supporter waaye jom ji ak fula bi yooyu yaa koy wone pour wane sa supporter seen xel na dal danga ngeen di am ndam léegi ñoom lu ñu bëgg lu ñu bëgg lu ñu bëgg si laa leen di fekk si man maay capitaine bi maay commandant bi armée laa yor Moustapha Niass def naa ko pour mu xoolal ma ñi nga xam ne ñoo war a dugg ak ñuy génn ñi fi nekk di liggéey ak man maa ngi leen di gis te ku ci am ndam da nga am ndàmpaay ku ci am gàcce danga nga génn wax ji dafay leer ku am ndam am ndàmpaay ku am gàcce daal may abal ndax dama bëgg Sénégal ñu wane ne dëkku jàmm la di remercier ñi nga xam ne ñu ci taxaw xotti Youssou Ndour gis naa ko taxaw na taxaw tànk ne dina taxaw dugg ci dina ci tax moom ne rip comme que Youssou Ndour moo ci mën a tax ba mu rip kon yéen nga xam ne lii moo seen métier di politique kenn kenn dañu ci war a sóobu muy Moustapha Diop di Cheikh Kanté ak ñeneen ñoom Farba ku ne yaa ngi taxaw tey pour xotti léegi xamala la da leen na wan na ko ñun tàmmale nañu te peccum liir bu neexee ngeen baal ma réew mi ci boppam réew bu neex la yow jël ma seere jël ma seere dama ne réew mi ci boppam réew bu neex la boo xam ne tey dañ ko war a def mu nekk réew cosaan ak aada yow jël ma seere mu nekk mbette ak contentement seramo mu nekk mbette ak contentement boo xam ne Sénégal ci boppam dañu war a wane que ñun dañu ànd ak mbette ak contentement mbette ak contentement boobu lu ñu koy wane mooy kenn ku nekk na nga wax sa aada sa cosaan daf ko large